énormément. Et c'est une habitude à l'extérieur, dans les pays européens. j'ai vécu à Paris, une heure de, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Alors, mhm. <laughs> Amna je pense que euh, si on continue comme ça, l'émission va purement économique parce que c'est intéressant. Ouais, et, et, et, je pense que... Moi, les histoires politiques, politiciennes, là. Vous nous devez, vous nous devez encore une émission, on va purement parler d'économie. Mm -hmm. On va convoquer la rédaction de, euh, de la maison et on fera Sénégalais on va faire deux heures de temps d'émission mm -hmm. pour parler que d'économie parce que man ça m'intéresse mhm. ndax suñu avenir si la ci la nekk je veux que tey si Sénégalais bu nekk mu sentir Sénégalais pour mën a toog fii pas muy bëgg a dem tukki pour dem euh, dem extérieur mhm. on va parler question politique balaa waxtu bi jeex euh, Abdou Khadir Djeylani uh-huh. euh, on revient waaw on <laughs> duggoon nañ génnaat waaw donc on revient sur les questions politiques uh-huh. bokk na ci éligibilité Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye déjà Sonko éliminé déjà sur le processus électoral Bassirou Diomaye fay jàll na ci parrainage citoyen lan la ñu war a mën a xaar ci kaw Bassirou Diomaye fay parce que yaa je vois beaucoup de pastéfiens qui disaient que lii bettu leen ñoom xaaroon nañ ni Ousmane Sonko du bokk alors le cas de Bassirou Diomaye ak seen potentiel candidat yi nga xam ni tey Pastef mu ngi misé ci ñoom quest que vous nous dites par rapport à da nga ba da nga partir ci benn postulat ne Ousmane du bokk. c'est pas c'est pas encore terminé. c'est pas définitif. ah on est en ñun ñu moom comme d'habitude on ne lâche jamais dugal nañ suñu rabat d'arrêt. Mm-hmm. parce que ku waxoon sénégalais yi ne leen euh, juge Ziguinchor dina jox Ousmane Sonko dëgg kenn du ko gëm. Mm-hmm. ku waxoon sénégalais yi ne un juge à Dakar dina wax réintégrer Ousmane Sonko sur les listes kenn du ko gëm. ou bien dina diir le droit. dina diir le droit kenn du ko gëm. donc ñun. Ousmane Sonko bokkatul non Ousmane Sonko mooy. le candidat bi bokk. ah loolu lañ gëm. jusqu'au bout dañ koy xeex. procédure fu mu ñu jaral procédure on va se battre jusqu'au bout. Mm-hmm. parce que nag c'est le plan du projet. il a toujours été le porteur du projet et ça moom du ñu hésiter d'aucune manière que ce soit. Mm-hmm. et c'est l'occasion pour moi ma jaajëfal le bureau politique. la présidence le secrétaire général ils font un travail extraordinaire yal na leen yàlla gën a dëgëral. ba ñu continuer. maintenant euh, Bassirou Diomaye a réussi étape parrainage bon Pastef buy réussir parrainage moom franchement du débat quoi. ah du débat mel ni nga ne nga ne maam Abdou Aïssé Dabakh Tidiane la quoi. <laughs> mu bañoon mu bañoon jàll moo doon nekk wala nga ne sëñ Touba Mouride la loolu loolu jarul wax <laughs> comme li booy di wax parrainage du sud débat si ñun 45 729 Bassirou Diomaye du débat si ñun hmm. d'accord alors li li li ma bëgg a comprendre monsieur Fofana et ça revient toujours mm-hmm. vous vous êtes convaincu que Ousmane bokk te day bokk par force ci processus électoral non donc pourquoi ngeen miser alors ci Bassirou Diomaye fay tey ñu naan Habib Sy mooy nekk plan bu Ousmane Sonko wala bu Pastef euh, déjà dafa am lu nit ñi comprendre te mu bëggoon mu leer ci bopp Sénégalais yu bari on dit que Pastef a a été dissous Bassirou fay ci ban bannière la demee ci élection en tout cas daal dem na <laughs> depuis suba ba tey ñu ngi may posé question je suis pas capable de répondre ah, mais bàyyi leen noonu rek ban bannière la deme en tout cas dem na xam nga way wuy këpp gaal. da ngeen bëgg a da ngeen bëgg a dem ci mythicisme léegi léegi. non ça ne du loolu c'est que boo fekkente ne ñi ngi ko seqal bañuñ dara moins ils en savent mieux c'est. Mhm. kuñ xam foo jëm doo yegg. yaakaar nga ne am na lu leen ump ci li ngeen di peaufiner yëpp. <laughs> yi ñu mujj yi ñu mujj def moom. <laughs> kenn xamu ko. moom wax fa dëgg yàlla moom bu ñu leen yeewoon ne leen malgré que yéen a yor armée yéen yor eh, justice yéen yor administration dinañ toog ba candidature Ousmane Sonko ci réew mi Sénégalais yëpp xam ne. Mhm. candidature bi dafa valable et validée et validée par la justice ak li gën a garaaw mooy léegi moom. candidature Ousmane Sonko a été validée par la justice sénégalaise avant le Conseil constitutionnel de prononcer. Ouais. Et ça, on a réussi. C'est une prouesse extraordinaire. Donc, machallah à nos avocats. Avec les deux décisions de justice. Avec les deux décisions de justice. Oui. Mm Avant ñuy dem Conseil suñu légitimité ak suñu Bassirou Diomaye Faye sa candidature ne souffre d'aucun débat. est-ce possible quelqu'un bu bokkoon ci parti. Mhm. ba fës fa nekk fa cadre ci parti ba. Mhm. Mhm. tey ñu ne parti boobu dissoudre nañ ko mu mën a dem ci beneen bannière. bien sûr en fait. benn brouillage la nit ñi benn brouillage la parce que non non non. le débat est posé quand lu loolu. xam nga ils xam nga ils sont ils ci moo tax xam-xam bokkul ak pexe. <laughs> li xam-xam wax mooy <laughs> li xam-xam wax mooy. comme on permet aux candidats indépendants d'être candidats aux élections présidentielles ñu nit nekk ci parti dem ba sa parti tànnu la nga génn ne indépendant la mm. la loi ne veut pas ça d'accord c'est comme man tey Moussa Balla Fofana rek tànn nañ diw neexuñu ma ma génn ne je suis candidat indépendant alors que ne politique laa doon def temps yi yëpp mm-hmm. donc ñu ne attention pour te nga réclamer wu candidat indépendant il faut que tu que tu sois sans activité politique pendant un C'est ça la loi. Beaucoup de candidatures vont être bloquées alors. Non. Sans activité politique pendant, pendant un an. Pour candidat indépendant laa la wax. c'est-à-dire que tey jii man Moussa Balla Fofana. mënuma nekk candidat indépendant. parce que man dama nekk ci parti politique je faisais de la politique sur les douze derniers mois man je suis inéligible pour candidat de la même manière que ñi nga xam ne candidat indépendant moom dugg ci dëkk bi di lijjanti parrainage mythique kooku dañ koy considérer. kii ki nekk candidat indépendant. dugg ci dëkk bi doon meeting di def campagne di def truc dañ koy considérer kooku kenn xam parce que ni ñuy différencier candidat indépendant ak candidat non indépendant mooy candidat mu nga xam ne dafa bokk ci parti dafa jël carte parti donc bu fekkee ne yow man comme man j'ai la carte Pastef mhm. dissoudre nañ Pastef munuma lu dul dekk nekk candidat beneen parti wala beneen coalition de parti mais munuma nekk indépendant il faut ma toog un an règle boobu nga xam ne c'est une règle pour protéger la posture de candidature indépendante moom lañ jël di ko jaxaseeloo xel yi. pour naan ay képp ko bokk Pastef mënoo nekk ak dugg na fi génn fi ñun li ñu def xam nañ ko. ñun ñëpp candidature yi ñu préparé woon yëpp mooy les cinq qu'on avait lancé au début kenn ku ci nekk dem nga ak benn. Euh, benn bannière de parti. Mhm. pour pour pour pour kenn demu ci parce que nag loi bi gënuñ ñoo gënuñ ñoo xam loi mhm. donc nañu bàyyi di lëndëmal xelu askan wi. li askan li askan war a xam. ma doon laajte sànq tontu na ma. Bassirou Diomaye Faye demul dafa dem ak beneen bannière parti. non mais il est c'est évident que du dem ak candidat indépendant. il va y avec un parti non ça c'est un <laughs> secret. mais ce qui ce qui ce qui ah. juste pour vous dire. Pastef bi ñu créé ba léegi mosul dem ak récépissé Pastef. Hmm. jamais on n'a jamais hmm. été aux élections ak kayitu Pastef. Hmm. donc nga disul yoog ñàkk disul bañ dee lañ am. donc avec le rabat d'arrêt là. vous êtes convaincu que ni son Sonko dina bokk ci liste de vingt personnes yi nga xam ne euh, liste de pour le 20 janvier je veux dire liste des candidats officiels pour les élections de 2024. gis nga candidature son Sonko ci lenn rek la wékku ginnaaw yàlla. suñu détermination. kese ginnaaw suñu borom lenn rek moom mun a def définir suñu bokk suñu nàkk bokk mooy suñu détermination. par quel moyen. tous les moyens légaux lépp lu ñu mën dañ koy. moyen légal ah les moyens légaux pardon. je suis on est des républicains tous les moyens légaux. Mm -hmm. parce que ni. Mm -hmm. j'ai une autre question. par rapport par rapport à à à, cela. muy euh, candidature à MIPSI. parce que comme li ñu waxoon li fi euh, l'autre fois gi fi ñëwoon. le le le coordonnateur de l'ACOS. qui disait que ne ñoom comme dañuy dañuy jouer bukki ñombar ak ñun ñu ne dañuy jouer bukki ak ñombar ak ñun la candidature de Habib Sy déjà lan lan ngeen ci lan ngeen ci xalaata def parce que déjà gis nañ keroog mandataire am ne si Ousmane Sonko nekk candidat <laughs> ñoom dañuy renoncer si seen candidature bien sûr Ousmane Sonko tey bu nekkul candidat est-ce que Habib Sy officiellement va continuer d'être d'être candidat ou day dem jàppali Bassirou Diomaye Faye <laughs> loolu bu ñu ko waxee jàng yi tas tax ma <laughs> parce que si vous réglez cette question <laughs> leer na déjà pour. non les Sénégalais. bul xam ñeneen ndax amuñu ñeneen candidat. ah oui. ah oui. ci ci 21 yi jàll nii. waaw bu kon nit ñi wax ni candidat yi bari yi jàll candidat Macky Sall yéen mm. dañuy jouer. Mm-hmm. parce que candidat ñu bàyyi ko mu jàll euh, Jeylaane 21. non c'est sûr dina am ñoo xam ne. fait dinañ leen recaler. déjà on parle de du cas de Déthié Fall et de de Habib Sy pour di mhm. wax ni seen condamnation tey ils ont été condamnés que loolu mën na entacher seen casier judiciaire qu'est-ce que vous en pensez vous. ah je laisse le travail à nos excellents avocats qui nous ont jamais déçus jusqu'à date. <laughs> Mhm. moi je pas juriste xaw ma ci dara xam-xam du pexe donc duma fi sàkki pexe xaw ma ci xam-xam li wérte woo daal mooy wóolu nañ leen jusqu'à date moi ils m'ont émerveillé parce que y des moments où je bon on y va mais. ils nous ont démontré pas vous n'étiez pas optimiste. si on est toujours en fait on est déterminé. Mhm. mais des fois man je suis quelqu'un de très réaliste. je sais les adversaires que j'ai en face je connais leur nature et nit booy xeex da ngay xam sa non mhm. donc il faut savoir ce, ce dont il est capable. Mhm. et c'est parce que tu le contrecarres que tu le circonscris. boo ko bàyyee mu def li mu bëgg li nga bëgg doo ko am. c'est aussi simple. donc mbir mi du pessimisme non réalisme la ak stratégie ak plan jot na mais j'ai envie d'introduire une question de d'un internaute ouais, vas Papa Ibrahima Faye vas Bachir euh, il dit Bachir Fofana xam naa dafa <laughs> dafa c'est ça <laughs> Moussa Balla Fofana euh, nee na pourquoi vous ne prenez pas vos responsabilités euh, pour mener le combat diplomatique et d'être devant euh, d'être devant Hmm. vous avez un bon profil pour le pays et qu'il faut dialoguer xam nu ñu mën a comprendre question bi mais en fait peut dafa bëggoon. manaam le euh, combat que ça soit diplomatiquement aller vers le dialogue. voilà. au lieu de mener ce combat de bras de fer. Mhm. dugg justice fii génn fii xeex fii. maanaam li ma doon wax bu fekkee ne Sonko du bu nekkoon politicien génn na bu yàgg. est-ce que finalement donc il ne suggère pas ce à ce que. ce combat diplomatique jaaree ko ci waxtaan. mois je suis très diplomate. lépp loo xam ne war naa ko def rek def naa ko. waaye je suis membre du cabinet am na ne mënuma ci fan mais lépp lu nga xam ne sama devoir la def naa ko mais ce qu'il faut aussi comprendre mooy au début dama leen wax ne ñun lu ñu intéressé mooy le projet et pour le projet tout le monde doit accepter des sacrifices y compris Ousmane Sonko. Mm. donc wax. mais waxtaan ci lu nga xam ne sénégalais yi buñ ko déggee danañ xam ne ñii kat waxtaan nañ ci lu ñu war a waxtaanee. Mm-hmm. waaye ñun ñu waxtaanee boo xam ne dañu compromettre suñu bopp on le fera jamais. moom ce qu'à un moment donné Barthélémy Diaz waxam jamu doon wax ñëwul actuellement. pour dire que ni il faut des fois soo bëggee dara mu leer na leen ki nga jàkkaar loolu moo lëpp doole et il utilise tous ses moyens toog waxtaan ak moom ba am li nga bëgg a dugg ki ñu jàkkaar lool moo ñu ëpp doole damay arrêté ci baat boobu ki ñu jàkkaar lool ëpp ñu doole xamul tax parce que askan wee ko ëpp doole te suñu borom moo ko ëpp doole te moom li mu yor intéressé wuñu le pouvoir na nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est le projet et pour jot pouvoir bi mënuñu compromettre compromettre suñu probité a être des porteurs du projet ñun bu ñu demee ba sénégalais bu ñu xoolee xam ne ñii amuñu jom amuñu fulla ak fayda def lii ñu wax ne dañ koy def parce que ñu ngi dem di négocier ñun boobu on a tué le projet. Et vous avez besoin du pouvoir pour mais parce que justement pareil, la fin ne peut pas justifier les moyens. Mm -hmm. que nous ne pouvons pas accepter tout et n'importe quoi. Mm -hmm. et qu'on doit accepter sacrifice ñun. Mm-hmm. pour le projet. Mm-hmm. tey jii kenn xalaatul woon dans la tête de ce régime il n'avait jamais pensé. que Ousmane envisage peut-être que d'autres personnes d'autres personnes portent le projet. un politicien de métier chaise bi mu toog kenn du fa toog. number one eh. number one number one number one <laughs> man su ma mais man voilà su ma neexoon jouer perso. Mhm. je l'ai jamais fait et je le ferai jamais je l'ai dit benn moment sax ils ont véhiculé des infos comme quoi Balla Moussa Fofana dem na récupérer ay fiches de parrainage. Hmm. créer la division. pour être candidat. pour être candidat division. Mhm. je l'ai dit alors que la question de candidature a été discutée en interne ma ne moi je l'ai man maa jox Ousmane Sonko ne ko maa ñëw sa parti. Mhm. nekk militant nga jël ma ne ma dugal ma sa cabinet le cabinet d'un homme d'état c'est pas n'importe où. Ouais. je ta stratégie. Mhm. loo ne loolu la loolu la jusqu'au jour yàlla def leneen te la yàlla na yéex ñaanuma ko yàlla. Mhm. mais c'est pour dire que nit boo engagé woo fenn. il faut arrêter les logiques de personnes les logiques de division donc moo tax régime bi li leen gën a sonal mooy la manière philosophie politique bi ñu yor ak posture bi ñu am ak nit ñi ñi nga xam ne ñoo ñu dooleel tey